waaw solo ndaje tey bi euh, li ko li ko li ko en tout cas ndaje tey bi li nga xam ne moom mooy li ko wund mooy euh, ci mois d'avril ba le passé dañu daje woon Sédhiou waa ministère de l'éducation nationale waa agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits ak euh, waa inspection de l'éducation et de la formation de Sédhiou inspection d'académie de Sédhiou ak collectivité locale yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Sédhiou bi ñu fa dajee dañoo càmbar benn modèle ba nga xam ne moom la ñuy tuddee approche préscolaire communautaire dañoo fekk nag au niveau de Sédhiou benn inspecteur de l' éducation de la formation bu xarañ bu fa nekkoon ñu koy wax El Hadji Cissé moom moo créé woon benn modèle bu ñu tuddee classe préscolaire communautaire ñu gis ne modèle boobu euh, modèle bu soutenable la buñ ko buñ ko buñ ko amélioré buñ ko en tout cas bu ñu fexee ba mu gën a baax bu ñu defee daje boobu ñu ne ah modèle bii kat kon dañuy lëkkaloo ak UNICEF mu jàppale ñu ñu xool nuñ koy en tout cas jàppandale bu am bu ko defee ñu mën a xool nuñ koy lawalee ci dëkk bi yëpp léegi nag bi ñu dajee Sédhiou maire yi nga xam ne ñoom ñoo fa daje woon dañu jëloon ay engagement ne ñoom dinañu jàppale classe préscolaire communautaire yooyu dinañ ko def seen i gox ba pare at bu jot lu mu lu tuuti lu mu gàtt gàtt lu mat 500000 dinañ ko accompagner modèle boobu. su ko defee nag ñun ci cadre boobu la ñuy liggéey looloo taxoon tey ji ñu daje fii ñu ne ah comme dañoo bëgg ren ji ubbi euh, euh, ñeent fukki classe préscolaire communautaire au niveau de Sédhiou ubbi ko ci région de Sédhiou mais dañ koy tas ci département yi parce que département Sédhiou day am ñaar fukk département Goudomp am fukk département Bunkiling am fukk même ci région de Kolda sax département Vélingara ñoom fekk si nañu ci liggéey bi ba ñoom décidé nañu ubbi fukk ak euh, en tout cas ak ñeent classe préscolaire communautaire looloo taxoon ñu ne ñun dañ fiy dajee tey ji euh, liggéey invité fi ay directeur de centre de formation des personnels d'éducation et de la formation invité fii ay inspecteurs ya nga xam ne xarañ nañu ci wàllu en tout cas tabax ay jumtuwaay invité fi waa agence de la case du tout petit invité fii waa direct division de contrôle médico-scolaire hmm? invité fi waa direction de la formation et la communication ak inspection des daara pour que ñu dajale suñuy xalaat ak suñuy xam-xam jéem a tabax ay jumtuwaay ba nga xam ne ci la ñuy former euh, ci diir bu néew ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngale ci classe préscolaire communautaire yi maintenant jumtuwaay yooyu ñi nga xam ne nag moom la ñu bëgg a tabax fii day nekk ay jumtuwaay ya nga xam ne ci wàllu naka la ñuy jàngalee ak lan lañu fay jàngalee ci wàllu santé nutrition ci wàllu nu ñuy liggéeyee en tout cas ay matériel didactique loolu daal moom mooy solos ndaje bi tey fii ci Thiès. Euh, euh, waaw classe préscolaire communautaire yooyu li nga xam ne moom mooy en tout cas particularité mooy. dafa nekk modèle ba nga xam ne mu ngi soog a commencé en tout cas di am fii ci dëkk bi te dañu gis ne li ñu xamoon ci école préscolaire mooy ñetti at am nañ préscolaire nga xam ne aussi benn at la mais bii nag dafa ñëw révolutionné nekk préscolaire ba nga xam ne ñaari at lay doon su ko defee nag ñun ñu xool ci ñaari at yooyu laka lan la ñu war a en tout cas jàngal xale yi ak ñi leen koy jàngal naka lañ leen war a tàggatee ba xale yi bu ñu leen formé ci ñaari at ci yooyu ñu mën a bu ñu jógee préscolaire dem élémentaire ñu mën fa réussir ak réussite ba nga xam ne réussite bu am solo lay doon. merci. Mhm. man maa ngi tudd euh, Cheikh Ndour jóge agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits di représenter tey fii madame la directure générale de la petite enfance et de la case des tout-petits madame Thérèse Faye Diouf moo bugg a wax tey ne lii lu am solo la. parce que dafa tënk lu am solo mooy le droit à l'éducation mooy ne fi mu nekk nii su fekkee dañoo bugg a jël en charge tout tànk yi il faut que collectivité yi muy maire yi ak communauté yi ñu bokk ñun ñëpp ak état jëlandoo cette demande demande bu am solo la te lii commencé Sédhiou tey te du fa des parce que du fa yem parce que suñ paree modéliser ko ba def programme boo xam ne am na solo ba former acteurs yi dañ mun a lawal lii si yeneen régions yi dina permettre ñu yëkkati tuuti euh, li ñuy wax si tubaab TBPS bi voilà. Euh, kon euh, dafay taxu daal xale yi nga xam ne daanaka particularité mooy xale yi am ñaari du xale yi am ñaari at mooy xale yi nga xam ne am na ñeent at walla juróomi at. liñ si bañ mooy ne xale bi dem ba dugg CI li ñuy wax classe de sixième te jaarul éducation préscolaire parce que dafa am solo ci gune te dañ jàpp ne éducation préscolaire boobu moo nekk base système éducatif u Sénégal xale toog bi am juróomi at juróom-benn at te jaarul foofu dañoo jàpp ne loolu dina nekk loo xam ne dina ko gàllankoor si continuer njàngam moo tax ñu jàpp ne su demee si zone yoo xam ne amuñ structure formelle yi classique yi nga xam ne amul école maternelle publique amul case des tout petits amul garderie communautaire amul euh, CPE loolu su amul si zone bi te population yi pare ñu accom collectivité bi mairie bi pare pour accompagner bu état bi day taxaw gunge leen pour ñu samp école yooyu pour mun a permettre gune yi ñu dugg foofu mun a jàng.